waaw bi si guddi dañu amoon benn incendie bu am au niveau du poste de Bel bi nga xam ne moom mooy alimenter lu ëpp ci centre ville bi bu mu amee nag yàlla dimbale nañu ba sapeur pompier yi teel nañ ñëw ba maîtriser incendie bi léegi nag équipe yi nag ñu ngi ci di réparer incendie boobu sax moo tax lu mel ni Gorée dafa coupé woon mais Gorée delloo nañ courant bi depuis sept heures puis yóbbu nañ benn équipe boo xam ne aussi bu kii bi taxawee dinañ mun a démarrer groupe électrogène bi nga xam ne moo fa nekk pour pouvoir reprendre l'île mu des nag partie bi nga xam ne moo nekk au niveau de centre ville foofu reprendre nañ si une bonne partie parce que léegi xam ngeen réseau Sénélec bi nu mu demee léegi par le poste de université ak le poste de Hann tax nañu ba ñu jël une bonne partie de l' alimentation yeneen clients yi si des nag léegi ñu alimenté leen moo tax ñu ngi siy profité aussi di jégalu bu baax suñu clients yi si désagrément yooyu nga xam ne fu mu toll nii ñoom ñëpp fàtte woon nañ ko.